Pape Demba bi tey ci yéen kaay groupe promo consulting bi mu fay leeral ne Senelec nag dafa nekk ci ay jafe-jafe te toll nañ jamono joo xamante ni maanaam courant bi mënuñu ko ñàkk yokku yéen kaay ko des médias gi de la turbine ñu fekk fa Pape Demba bi tey moom muy wax ci njëgu courant bi nga xamante ni dina daal di yokku muy andi ay justification nee na nag Senelec dañoo am ay jafe-jafe lu toll ci fukk ak ñaar ci ay milliards yéen kaay gi mu ñu xamal lan ñu kuréel gi nga xam ne mooy aar ñu bokk ñoom nag nee mbir moomee ñu ko nangu benn yoon ñoom Guy Marius Sagna ñuy woo askanu Sénégal gi yëpp ñu daal di génn lànk kandaare bañ ko nangu ma ngi ci yéen kaay gii di réew mi ko du jee ndax nag ñoom nee nañu dafa yomb trop xëy suba rek ne mbilim laaj ci bëgg a yokk li nga xam ne mooy njëgu courant bi yéen kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal nañu en tout cas li am ba des waa Sénélec nag nee nañu am nañu ab manquement boo xam ne toll na ci douze milliards yéen kaay gii di source a xëy yóbbu ñu diiwaanu Njaañ ca arrondissement bu Kokki foofee nga xamante ni nag dafa am benn daara boo xam ne Serigne Cheikhouna Gueye moo ko jiite moom nag dafa jéngoon ay ñenn ci ay dongam loole nag daal di koy jural sax maanaam kaso moom ak waajuru xale ya ak ministre métallique bi nga xam ne moo doon defar yooyu la jéng ci tirbinal bu Louga tey ji nag la ñu leen di daal di atte ba tey ci biir yéene kaay gi ñu fekk fa ñoxo baay Diouf mi nga xam ne mooy directeur de la promotion de droits de l'enfant moom nag dem na diwaanu Njaañ waaye nag ña nga xamante ni daal ñoo jéng xale ya jubluwuñ si toroxal leen nee na nag ñi nga xam ne ñoo jéng xale yi la waral mooy ak ñàkk xam ne am na loi bu koy tere ba tey ci biir journal bi di ko mi quotidien ak l'observateur mu ñu xamal naan ñu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ni kii démb moom nag daa nay dalal ab délégation Serigne ñu dara waaye nag Serigne bi dafa mel nii tëj gi ñu tëj Serigne Cheikhouna Gueye neexu ko moom Serigne bi nee na dafay bàyyi ba ñu àtte ba pare mu doog see yëy yàbbi jëmale ko ci wàll woowu yéen kaay gi di Sud di dikkal ñu ci coowul pétrole ak gaz bu Sénégal bi nga xam ne ñenn ñi dañoo jàpp ne ay wuruj ak i daf saa di am ba tax taxoon doyen des juges mi nga xam ne mooy magu àttekat yi déglu si ay kilifa yu baree bari moom Samba Sall ni ki démb nag la tëj boobalee déglu ginnaaw bi mu dégloo ñi nga xam ne ñooy waa Timis Corporation journal bi nag nee na en tout cas li am ba magu àttekat yi di doyen des juges Samba Sall maanaam mooy yor ca gul guyam yéen kaay gi di réew mi ko dujee mu daal ñuy xëy yóbbu ñu diwaanu Mali foofe nag lu toll ci fukk ak ñett ci ay soldats français yoo xam ne dañoo faatu ginnaaw nag ñaari hélicoptère yoo xam ne dañoo daa di daanu yéen a kaay gii di di xëy ci li nga xam ne mooy Ligue des champions bi ak match yi nga xam ne moo jot a am ni kii démb diggante Real Madrid ak Paris Saint-Germain dañoo mujj témboo kenn ku nekk dugal sa morom ñaari but tey ji nag ay match yu tàng jër yoo xam ne nemmeeku nañ ko match yoo xamante ni nag war a dox diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Naples bu Koulibaly ñaari gaynde ñaari sénégalais yoo xamante ni nag ca stade bi di Anfield nar nañu faa daa di defante ba tey journal bi mu ñu xamal naa ñu tey ji tamit match bu électrique ci champion bi dox diggante FC Barcelone bu Lionel Messi ak ñi nga xam ne ñooy almaa yi di waa Dortmund